maam bu sa jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta maam maaram eh, ngeen jëf euh, mbokk yi ñuy bàyyi xel seen télévision Touba TV comme ni ngeen koy toppale rek ci màggalu Poroxaan édition 2019 ba léegi ñu ngi ci euh, cadre boobu Euh, xam ngeen ni nag poroxaan euh, nekkul ne waa kër euh, Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñi sant Mbacke ak ñi sant Bousso rek ñoom ñoo fi ñëw waaye fépp la taalibe di bàyyeekoo di ñëw Serigne bi ma jàkkaar mi ngi bàyyeekoo fi nga xam ne moom moo di Casamance Ziguinchor ñëw fi nga ne moo di poroxaan ngir màggal si li nga xam ne moom moo di soxna Mariama Bousso Diarra sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu lay sant soxna bi ñun tam gannaaw bu ñu jullee ci yonent bi sant suñu borom alhamdulilah rabbil alamin kontaan nañ lool ñun ñu ngi jógee Casamance dëkk bu ñuy wax Kaabajo foofu la ñuy jógee ñun bu ñu commencé magal yàgg na lool man mii wax ak yow fii laa commencé di magal en 76 fii laa commencé di magal avantu wa bon waaye li ñu am fii daal sant nañ suñu borom lool ñun marabu bi toog nii ñun waa Casamance ñun ñoo ko moom. sant nañu lool gannaaw yàlla euh, yéene lay fay ci jaamam yàgg nañ di dem Sëñ Tuubaa kenn képp ko bëgg rek mu ngi koy yëg te bëgg na la ni nga ko bëggee noonu la lay bëggee ni nga ko yëgee noonu la lay yëgee yàgg nañ ci di topp Sëñ waaye gis nañ lu ñu fay sëñ bi toog nii ñu ngi ñaan yàlla yan na fi yàgg lool te wér lépp lum mu bëgg def yoon Sëñ Tuubaa yàlla may ko kattan mu def lépp ba mu mat. foofu ci Kabaajo naka ngeen fay dundee sëñ Touba da ngeen ay daayira wala. ay daayira yu bëri bëri bëri lañ fa am Kaaba ji yëpp taalibe sëñ la Kaaba yi dëkk bi yëpp góor ak jigéen yëpp taalibe sëñ Touba ñun man bi wax ak yow bi ma judoogul foofu lañ fekkee suñu maam yi taalibe sëñ Touba ñun ci lañu judoo ba tey yoon bi ñu ngi koy topp. Euh, dëkk bi yëpp taalibe Sëñ Tuubaa la ndax Sëñ Seex Sey doomi euh, Sëñ Suwaybu euh, am na fa ay tool ñu ngi koy liggéeyal foofu waaye ñun suñu suñu suñu sëriñ Mountakha mu ngi nii mu Sëñ Mountakha moo nu may kii mu def ko représentant suñu dëkk. man ni général des Mourides Sëñ Mountakha. Sëñ Mountakha waaw ah, moom moo ko fa teewal. waaw moo ko fa teewal. moo ko fa def nji ci moom moo ko moo ko fa représenté bu ñëwee bés bu mu ko joxee bi mu ñëwee mu wax ko mu wax ma ko man nijaayam la ma ne ko man gannaaw tey man sa Baay Faal laa man kii mooy sama Sëñ Muntaxa te noonu laa koy sendee noonu laa koy toppee euh, kontaan nañ lool. kon daal daayira bi chaque année da ngeen di ñëw fii Porokhane liggéeyal soxna si. chaque année daaw la ñu commencé di fi ñëw. mais chaque année léegi kii ñaan nañ yàlla chaque année ñu ñëw bu ñu bu ñu yàlla may fan gudd ak wér ñaan nañ yàlla chaque année ñu ñëw waaw léegi damay. gis nañ la nga takk photo sëñ Fallou bi njël bi nga takk ni waaw boobu boobu sama sëriñ la sëñ Fallou sama sëriñ la sama sëriñ la moom man moom laa yaakaar àdduna ak àllaaxira seede yàlla moo dama bokk ki ci sama mbokk soose yi e pour ka mbaɗi mandinkol ana ka moyle ka be ke ɓe konton ka duwa ka tandila komi mbe ala tentula ana ala kiila sallallahu alayhi wa sallam ka tandila komi ndol kabajo ga kuule soto miya lon ko kuba kataholon ga mamol tarle ɓe sintuba silo kan eɓe sintuba e sintuba la talibol lo muyti ndol ɓe wulutawole kono fo kana abula biila bara ga kuusoto je ñimmoro min ɓe sirin ndol ɓe duwarin alamari ala so siyola anin jata kende fa lafita ko ku do kula sintu bala eh, silo kan ala ma ko ay o do kulu beke fa fa fa timma mbe duwala wala katun ay ndol ay ndol ngajel ko mi mo kendolom ala la molom ay hadama dingo long ay hadama dingo hako long ay hadama dingo hako diala nyimmi mbe sirim barindingo long atela ka ala representant na sate do ndol kabir eh, nga tu nga tuba na kumasi ala en sokula ay ngajel ko ala en joola sin tuba ni ya kanu ya kanu ñaamin a ke kanu wole ñaama ya kalamuta ñaama a ke kalamuta wole ñaama ayen so kuula mi ye lon ko eh, a tento ye folow dula soto bari dan dula tala aye ñimmindina ka tandi comme wolo ɓaye kabajo ntolga muta wole ñaama mbarniwo lon mbemala taaliboldi kabini somanda fo fo wularo mbemala taaliboldi mba nayi kuma o kuma foye ala ndigalo mbe bulari woleno kam ndigal eh, muridi tal mun no kan e kabila tandina komin ñinno mal représentant le je ngamuta ko ate fangalo be sirinje mbo kontano tandi lala ka tandi ala komi alhamdulillahi rabbil alamin mbala tan lambe kila tan a jayila man dandula sudal wala no makko moto bambu so jaara mi jina ay dëkkandoo mi jina njoki soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta mamaram